safaru bamsasin junnatun safaru bamsasin junnatun safaru bamsas sahahtali bismillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala alhaadi alamin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmi diin mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan leeral TV di lu si melen yoon ci seen jataay bii nu baaxu ànd ak yéen waxtu woo xamee ni weeru safar teru na di ko ànd ak sunu xarit sunu wëllëre sëriñ Jibril xule di ko ci ndokkeel ci yéene gim ñu yéene aw yiw ba tax na saa bu weeru safar teroo mu ñëw ànd ak ñun ñun laayante biir ak jullit ñi ndax ad diinu annasiha loolu ñu ngi ko ci sant bu baax di sant kilifa yi nga xam ne ñoom la bàyyi koo fa ñoom ñu ñëw di uh, amal jataay yu mel nii di ndokkeel sunu xarit ba sunu wëla réwa sëriñ daam doonte mësuñoo gisee waaye jokkoo nañ téléphone ay yoon yoon mu yàgg bëgg ci ñun jataay yu mel nii di ndokkeel ci weer yu ñu nekk muy weeru safar al alamul islaamiya la siyama al muridina wal muridaat waaye nag rawatina al xalifatul aam seex muntaqa yadallah wa nasara moom mi moo nekk ci bopp yoonu murit weeru safar bu teroo weeru texe la weeru yërmande la ni nga xam am naa aada wala sunna xasana ci saabu weeru teroo ma ne boroom safar moo dox suñu digganteeg safara di ko wax ak waxaat te Cheikh Mouhamed Lamine Diop Addaghani nettali ko loolu mooy li am Cheikh Ahmadou Bamba yàlla daf koo yebal mu ñëw ngir xettali jaam ñi mu nekk nixmatun minallahi tabaraka wa taala loolu nag moo tax yàlla dogal ñu tànnoon benn tomb ngir bëgg cee waxtaan bi mawaahibu sayxul xadim radiallahu taala may sëñ tuubaa nim nuroog may yonant bi alayhi salaatu wassalaam yonant bi alayhi salaatu wassalaam yàlla def ko duy ba mu fees junji ñu ko ci alquran ni maqaamaatu xayril xalq an xayri rabbihi muqayabatan faltaqra an suuratu mi ku bëgg a xam dëgg dëggi maqaama yi gën gi mbindeef alayhi salaatu wasalaam demal nga yër alquran rawatina saar wi ñuy wax suuratu naj mi sëñ Tuubaa junj ko ci xasiida yi Seex Ahmadu Bamba ku bëgg a xam ay maqaamam ak ay darajaam yëral tuuti ci lim mbind ni nga xamee suñu borom daf noo rencontré xamal nu maqaamam yonent bi sallallahu alayhi wa yu bari ci alquran yeneen yi ci def yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamleel ko boppam ci addis sëñ Tuubaa it noonu la jëlee maqaama yi ko yàlla defal ci ndigalal suñu borom mu xamle ko ci xasiida yi ndax walli wii ñaar lañ dafa am walli wax ni lépp lu ko yàlla may da koy wax ni ko boo ko dencee moom a gënal kenn bañ laa xamal dara am walli wax nag yàlla da ko ni waxal ngir nit ñi xam la ndax buñ la xamee dinañu daw wut si la te seenu wut si la mooy seenu texe Cheikh Abul Abbas al Mursi wax na ko nee na biñ ko laajee ni ko yow li ñu dégg nga di ko nettali ci ay karaama yi la yàlla defal lu tax mu ni waaw di fu ma ko ngir puukarewu di fu ma ko ngir damu su borom daf maa xamal ni ku la bëgg texe ku la topp texe ma bëgg su ma ko waxee ñu dégg ko sopp ma topp ma ndax ëllëg yow mal xiyaam ñu texe sëñ Tuubaa wax ci mbindam nii xaabat maqaami an siwaal baaxil xadim man sëñ Tuuba sama baatin sama maqaama sama daraja ump na kudul yàlla lu tax daraja yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ump ku yàlla sëñ Tuuba nag bi muy wax loolu dafa taxawee ci maqaamam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamee yonent bi sallallahu lislaam jim indi day wommat jullit bi jëme ko àjjana ëllëg yowmal xiyaam wa man yabtaqi xayral islaami diinan falan yaqbala minhu sëñ Tuubaa moom it noonu la ko yàlla defale tawfiix yàlla jox ko xasiida yoo xam ni xasiida yi dañuy wommat aji gëm ji jëme ko yoonu àjjana ni nga xamee ni noonu la lislaam di wommati nit ki jëme àjjana moo tax mu ni moom Cheikh Ahmad Bamba yaquudu qatiyal murid li qaadiril baaxil murid mu sax sixan kulla marid ilaa siwa muallimi sama mbind day wammat murid bi bu ñu nee murid kay mooy kan mooy al muslim mooy kan mooy al mu'min mooy kan mooy al loolu la dëxëñ ci biir xasida yi mu ne ni nga xamee ni lislaam day wammat muslim mu'min muhsin ba tàbbal ko àjjana sama xasida yi noonu lay wammatee al muridu saadiq ba tàbbal ko àjjana te al muridu saadiq mooy al muminu billaahi xaqan rek mu ni du ca yem da koy soril ibliis kon bokk na ci ay mayam muy karaamaam ndax bul fàtt ni yonant li muy def mujisa la walliw li muy def karaama la Seex Ahmadu Bamba nee na kullu walliyin soo tasa bu sin abat bi say li man arsalahu aqul ahad dina walli woo fi gis mu ngi ngëpp mu ngi mat ci mbiccum kaalak yonant bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne li ñuy donn lépp ñu ngi koy donnee ci yonant yàlla muhammad ci lañuy ñuy dem nag ba yegg foo xam ni dinañu tiim ndabal képp ku yanu noonu mu waxee ni li xutta ma faaxa bihil jilaani alayhi ridwaanu lesil alaani mu ni man yàlla wammatal na ma mbootum sekkere bi nga xam ni moom la Cheikh Abdul Cheikh Ahmadi Cheikh Abdul Xadir Jilaani bëggoon mu matee fi moom yàlla wat wammatal na ma mbóot ma wattee ma ko maanaam dénk na ma mbóot ma wammatal na ma ko indil na ma ko mu ne mi ngi ñaanal Cheikh Abdul Xadir Jilaani mu nag ngërëmal yàlla mi aji kawe ji mu ne ilay xutta ma bihi abul asan faaxa bi xidmati jëddi nabil asan suñ borom wammatal na ma secret mbóot mi nga xam ni moom la cheikh abu asan saa seli doon mébéta am yàlla wammatal na ma ko indil ma ko man cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu mu ne tamamtali bi ma bihi tiijaani faaxa wa kuntaliya bil marjaani yàlla defal na ma tawfiix yi Cheikh Madi Tidiane la nga xam ni doon na ko sàkku ci boroomam muy baatin boo xam ni secret boo xam ni bu kawe la bokk na ci li ñuy tudde kat miya mu ni moom sëñ Touba yàlla wamatal na ko mbóot mi nga xam ni Cheikh Madi Tidiane yi doon na ko sàkku ci boroomam waxul nag ni moom lañ doon sàkku ci seen borom yàlla da leen koo xañ jox ko ko déedéet da di Cheikh Ahmadou Tidiane daraja ju mu am ak maqaam mu am mi ngi ko amee ci Mouhamed Ibn Abdoulah alayhi salaam ci la ko doon Cheikh Abou Cheikh Abdou Khadir Jilaani ka Salika Cheikh Abou Assane Sassali ka Salika léegi nag moom mu taxaw ci maqaamam Cheikh yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax am na yeneen yu ci nekk yoo xam ne yu baatini la waaye boo ko waxtaanee woon fii ñi nga xam ni dañoo fanatisme te duñu yër téere tasawuf yi. mën nañ koo gisee ne neneen waaye lu ama am la xëy na ma wax ko ci palaasam insha allahu tabaraka wa taala Cheikh bokk ci ay mayam mooy yàlla ràng ko garaatu Muhammad ibnu nga xam ni mooy sayyidil awalina wal axirin moo tax mu ne kataba allahu tabaraka wa taala wa nixma rabbul alamin anna katiba aasi al zalaba allahu tabaraka wa taala ilayhi waxdahu bi barakaati bi barakaati jamihil awliyaai alayhim ridwanullahi taala alayhim min awalihim ila axirihim bila salabiha minhu abadan wallahu allah ma naqul wakiilu signature sëñ Tuuba li tax bu waxee ba noppi wàllu yëpp buñ ko gisee duñ ko inkaar yonent yi buñ ko gisee duñ ko inkaar xam nga lu tax mooy sëñ Tuuba bu waxee ba noppi da koy signeloo yàlla wallahu ala ma naqulu wakiilu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana wax ni seede moom bu yàlla xasee ñëw soxlaatuñ keneen seede kay bala ñu see soxla soxla ñaar ñu maandu day fekk muy nit waaye yàlla moom soxlaatul keneen mu ni moom sëñ Tuubaa yàlla ci boppam moo dogal bind ci lawul mahfuus nii moom mi doon bind araf yi di Cheikh Ahmadou Bamba yàlla mi nga xam ni mooy aji xéewal ji bindaafu nii moom moo dogal ni moom yàlla subhaanahu wa taala waliyu yàlla yi la amoon ci ay mbóot ak i secret yu ñu jëlee ci muhammad ibnu abdullah alayhi salaatu suñ borom jël na ko teg ko ci loxoom mu ni moo xam wali wi ñëwoon jiitu ko fi la mooy wali yi fi jaaroon al mutaqaddimoona awliya al mutaqaddimuna wala moo xam al mutaaxirina la ñoom ñëpp kenn ku ne la nga amoon ci daraja ak i maqaama ak i mbóot yoo doone ci Muhammad ibn Abdul alayhi salaatu salaam suñu borom wammat na loola teg ko ci loxoom waaw ndax daa tax suñu borom nangu la mayoon ma Cheikh Madi Tidiane wala Cheikh Abdou Khadir Jilaani wala Cheikh Abou Hassan Saasili jox ko sëñ Tuubaa déedéet dañuy lam leen joxoon ñoom min awal ilal aaxar min al suñu borom boole na lépp jox ko boole na lépp jox ko. waaw sëñ Jibril Xulle bu ñëwoon fi man ma ne ko mbooleem ñi mas a ñëw ci man ñii téeméeri junni laa leen may ñii ñaar téeméeri junni ñii fukki junni ñii ñaar fukki junni waaw mu ni léegi dana am boole may yëpp yow mayendoo la ko a mayoon ñaar fukki junni kama mayoon téeméeri junni ñoom ñëpp danaa la may ku ci ne lu toll ni la ma la ma ko mayoon foofu la sëñ Tuubaa waxee ni mboolem wëlli wu fi ma sa jaar rek suñ borom yëkkati dara teg ci loxoom loolee ko yàlla joxoon yàlla jël na ko jox ma man sëñ Tuubaa waaye yëmu ci nag ginnaaw bi mu ma ko joxee ba noppi nee na ma dootuma ko nangu ndax bu fàttali ni wëlli yi léeg yàlla may leen ba noppi nangu ko loolu la ñu tuddee sëlbu mu ni moom sëñ Tuubaa yàlla nee na ko du ma la sëlbu mukk mukk mukk mukk léeg-léegi sax wàlliw yi seen moromam wàlliw moo leen di sëlbu du yàlla moo leen di bu waaye seen moromam wàlliw moo leen di sëlbu moo tax ulamaaw tasawuf sax dañuy wax ni ku ci mel ni imaamu nee na wàlliw bi li feeg jataayuut bi sallallahu alayhi wa naagu li feeg toogoo yonant bi toogoo yonant bi sallallahu alayhi wa sallam saaxiran laa wax de ayaanan nga ni ko dama mu ni haa bul naagu nii ñu rekki la weesagut waliyaasu billah ñu rekki la weesagut ñu ko gis ci waxtaane woon naa ko daaw ko ñuy wax euh, Aboubacar al nii bi nga xamante ni yàlla dogal na mu ànd ak ay taalibeem eggoon na ci diggam ak boromam bu waxtu julli jotee ak fu mu ko mën a fekk bu kàbbaree suñ borom da koy defal kës fu diggam ak kaaba gi muy jàkkaarloog moom nii ayaanan benn bis mu ànd ak ay taalibeem ñu dem ba nga xamante ni wëgg jot na war nañoo naan ñu romb benn teen boo xam ni am na benn waay bu fa ne lay liggéeyam mooy ku ñëw rek mu wëggal la fi sabilillahi taala du la laaj dara ñu tollook moom ñu jàdd ni nañu wëgg seenug jur biñ ñëwee wëgg seenug jur ba noppi moom moo leen di rootal bi mu leen rootalee ba noppi taalibe yi takk depaar war a dem bi nga xamante ni Aboubacar al-Baxilaani ñëw na war daabaam gestu ci teen bi séen mbokk mu nga xam ne moo fi nekk te doon wëggal nit ñi di leen wëggal fi sabilillahi bi mu ko xoolee bind bi ko yàlla bind mu nekk bind bu kiimtaane bu xaw a ñaaw daal ci misaal na ma yàlla baal nga xam ni jamono boobu sax ay baqatam mi ngi rot ci euh, ay tuñam Abubakar al ni wax ci xolom rek ci xolam mel ni lu ree dañ ni cey waa ji mooy ñaaw bind bi mu ànd ay taalibeem départ dem tisbaar jot ñu war a julli mu ni cëpp kàbbar gisul lam daan gis mooy daan def bu kàbbaree rek yàlla defal ko kasfu mu xam ni fii la kaaba gi féete mu jàkkaarloo kaaba gi direct te kaaba gi boo defee direct ci moom loo ñaan yàlla nangu ko mu kàbbaraat gisul dara mu kàbbaraat gisul dara waaye comme moom honnêteté intellectuelle la du war du naxe mu tas kaala gi fas ci ndigg li daal di wax tayli bi mu àndaloon ah la ma yoroon bu ngeen topp ma yàlla nangu na ko bay boo ngeen seeti feneen dal di wàññi nag di wëreelu di raasaatu di wëndeelu ba àgg ci benn wàlliw boo xam ne moo ko ëpp expérience yàlla dogal mu laaj ko mu ne ko yow dañ laa rikki bi sàngam romb nga teen sàngam am na la wax ci sa xel naa ma ne ah, gis nga kookee nga romboon ca teen ba naa ah, ma ne ko mooy xut bu samaanu jamono bii waaye boo nga dellu ci moom dellu na ci moom tër bii ko ñaari at mu door koo delloo lam joxoon kon wàlliw dana rikki morom ja ba tey boo demee ci Muhyiddin Ibn Arabi nettali na ko ci ñaari wàlliw yi nga xam ne ñaari dëkk yu doon xeex bi walliw bu ndaw nekk ca gaal gële bi nekk ca gaal gi wàlliw bu mag bi ko am expérience la moom nëbb na li ko yàlla jox gis na ni xare xare rek la ba keroog ñu am ndam waaye wàlliw bu ndaw moom daal di jëfandikoo ak wilaayatum ndax amagul benn expérience bi wali bu mag bi ne ci gaal gi daal di koy rékki ila axirihi kon waliw dana rékki morom ja waaye tamit suñu borom ci boppam dana rékki waliw bi sëñ Tuubaa ni moom yàlla musal na ko ci ak rékki nim ci musale yonant bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu ne te nii jami a duuna sala bi wali taqudu soxla waxta tale bi yàlla musal na ma ci ak rékki te kat lépp lu ma ko mas a laaj jox na ma ko ba jox ma sax lu ma ko laajut waaye nag musal na ma ci ak rikki waaye lu ma ko laaj rek mu teg sama loxo fa saase yonent yi ni ëppanti ay daraja ak i maqaama tilka rusulu fadal naa baadum ala bahdin alquran wax suratu baqara del waxaat ne wa rafanaa baadum fawqa bahdin darajaat wàllu yi tamit noonu lañ ëppantee ay daraja ak i maqaama am na ñoo xam ni liñ doon ne ci Mustafa alayhi salaatu wasalaam xaalu Ibrahima la woon ni ma ko waxee sànq ci weneen waxtaan xaalu Ibrahima la woon am ñoo xam ne liñ doon ne ci euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaalu muusa la ñii aalu xaalu Isa la alayhi salaatu salaam moo tax téere tasawuf fii di wax naan diw Moussa yun la diw Isa yun la diw Ibrahima yun la lu tax wàllu yi kenn ku ne da am bàyyi ruu ci yonant yi alayhimu salaam ñii yonant bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen bàyyi ruu direct. ñii Ibrahima mooy seen bàyyi ruux ñii Moussa mooy seen bàyyi ruux ñii Eesa mooy seen bàyyi kenn ku ci ne sa bàyyi ruux da koy donn xarfan bi xarfin donne ko ca xaala ba nga xam ne moom la amee woon ñi nga xam ni Moussa mooy seen bàyyi ruux dañoo donn Moussa ci njaxlaf moo tax si wàllu yoo xam ni wàllu wu njaxlaf lay doon wu met lay doon wu am fit lay doon wu jàmbaare lay doon ila axiri ila axiri yi muy yontu yàlla ñi doon Moussa alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne Isa mooy seen bàyyi ci ru da gis lu ñu nit bu feebaree buñ ko laalee mu wir wala mën nañoo dekkal ku dee wala wala wala ñi nga xam ne dañoo doon Ibrahima alayhi salaatu wasalaam te nekk doomi ruuxi Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ñoom tamit danga leen di gis boo leen dugaloon ci safara duñu lakk boo leen doon fexeel pexe ma du sotti ila axiri ila am ñoo xam ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam mooy seen bàyyi ruux tubaa junj ko al waladu waladaani waladul jismi wa waladul xaal waladul jismi yorisul yorisul maal waaye nag waladul xaal yorisul xaal wal maqaama Cheikh Bamba daa bokk ci ay mayam nag mooy kataballahu tabaraka wa yi nga xam ni dafa bari lool lum ci bind wax may yu ko suñ borom may te nee na yàlla ci boppam mooy seede ci lii mu wax ma ni woon léegi nag yàlla moom boo ko xasee jël seede soxlaatul keneen am na jamono boo xam ni benn conférence la bu amoon Liberté 6 xam ngeen ni Baye Sam daf daan faral di gane ji soxna Ndey Wàdd bu ko masaan di gane ji dina ma yëgal ngan nga ngir ñu daje fa mas nañ faa daje benn conférence ma laaj ko ko ci kataballaahu yi maa ngi jégguli ñi nga xam ni xëy na loolu neexu leen déranger na leen waaye histoire moom boo koy nettali nam amee rek noonu nga koy waxee ndax ñu bari dañoo jàpp ni xëy na eh, jamonante wu ñu wala gisee wuñu sëriñ Saam radiyallahu anhu ba ñu dajee ci conférence boobu bii yàlla dafa dogal ma laaj ko ni ko waaw damaa gis fu sëñ Tuubaa waxee nii kataballahu tabaraka wa anna baytullahi al haram tarfahu malaikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lu ci sëñ tubaa jublu mu ni ma ew eh waaye ndaw yaa neex yow sëñ tubaa waxi waxam nga ñëw di ma ko laaj waaye nag ah katabalaaw yooyu day daal di fir firantal katabalaaw yooyu day sëñ si Ahmadou Gaynde Fatma nee na moon yow ko bëgg téere nga boo fi ñëwee ñëwatee dinaa la may téere yu bari Cheikh Abdou laxat wan na ma ci katabalaahu tabaraka wa taala yoo xam ni murid yi sax duma leen ko wax bi conférence bi jeexee ba mu delluwaat ci kër ga mu dugg ci néeg soxna nday wàdd daf ma woolu ma ñëw mu wax ma ca loo xam ni na bu ko déggu ruy naka noonu gàmmu Louga it mas naa koo laaj lu mel noonu ci diggante yonant bi alayhi salaatu salaam ak Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye munu ma ñimewu ma la koo wax ñimewu ma la ko wax pour wax la ni la nit yàlla yi walliw yi ci seen bopp yooyu nga xam ni dañ koy jëlee ci seen boroom waaye di ko jaarale ci seen bàyyi ruux ci yonant yi alayhimu salaam yi nga xam ni ñoo fi ñëwoon sëñ tubaa moom li mu am lépp def koo jële ci yonent yàlla muhammad moo tax moom muhammad yu la moom sëñ tubaa boo déggee wàllu sàngam muusa yu la wala isa yu la sëñ tubaa moom muhammad yu la moo tax mu ne kataba allahu tabaraka wa taala fi law il mahfus anna katiba hasi l xuruf xaddamahu rabbahu ala jamil alamina mu ni moom sëñ tubaa yàlla moo bind ci law ul ni ma yow ahmadu ma ni ko labbayka yaa rabbi mu ni ma na la wóor ni jiital naa la ci kanamu bindaafun yëpp loolu lu garaaw la bu fekkee ni dangay jàng rek alfiqul islaamiya di nga di nga ni waaw kii nu mën a jiitoo ci kanamu bindaafun yëpp te yonent bi sallallahu alayhi moom mooy sayyidul awwalin wal axirin lu ko waral mooy muhammad yi la ci maqaamam yonent bi sallallahu alayhi la taxaw di wax ni suñu borom jiital na ma ci kanamu mbindaafuñ yëpp ndax yonant bi sallallahu alayhi wa mooy sayyidil awwalina wal axirin mooy sangu mbindaafuñ yëpp mas naa toog ak saxaaba yi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi di ko xool bu yàgg ñu ne ko yaa xayral bariya mu ni saaka ibrahima yow gën gi mbindeef mu ni déedéet kooku ibrahima la mu toog ba yàgg mu ni bu leen ma jël teg ma ci kaw yontu yàlla yunus mi ndax yowmal xiyaam wala ngeen di ma jël teg ma ci kaw mu musaa ndax yowmal xiyaam bu yàlla dekkalee jaam ñi lu ma gaaw gaaw a dekki danaa fekk muusa mu jafandu ci ceeri aras te moom mooy mooy njëkk a dekki moom moom yonent bi sallallahu alayhi waaye gis nga bi ko saxaaba yi ñettamalee ni ko waaw ndax kon léegi dangaa nekkul xayrul bariya dangaa gënul ci li yàlla bind mu xam ne nag léegi cëgg desagul desatul ci guy mu door lii na tontu ba tàkkusaan jotee mu ni leen axa kay annaa sayyidi wala di aadama wala faqra maay sangu doomu aadama yëpp waaye demawuma ko mu ni yow mal xiyaam yonant yëpp bu suñu borom wàccee jant bi ba tiggam ak boppi nit ñi xasab rek lay toll yonent yépp ci sama sama ker li waaye alhamdu la ñuy kerloo mbaa bu yow mal naaj wi lakk leen ci sama ron kepp arak li waaw alhamdu fa la kerloo mbaa naaj wi lakk leen kon bu sëñ Tuubaa ne yàlla jiital na ko ci kanamu bindaafu yépp mooy dafa taxaw ci maqaamam Muhammad ibnu Abdullah alayhi salaatu wasalaam di ko ñaan lu ko waral mooy yonent bi sallallahu alayhi xam nga suñ borom da ko wax ci alxuraan ni ko wa mina layli fa tahajjat bihi naafilatan laka xaasa an yabxasaka maqaman mahmuda yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ngay kër-këri guddi ndax dafa am maqaama mu ñu tuddee maqaama mahmud dama la caa bëgg a yéegee mu ni moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam maqaama mahmud day jenn daraja dong dong dong dong la benn jaam képp la ko yàlla di sédde ñaanal leen ma ma doon jaam boobee ba tax mu ni képp ko xam ne dégg na nodd gu daanu mu ñaanal ma ma nekk jaam booba yowmal xiyaam maa lay ramm moo tax nga dégg saa bu ñu noddee nga dégg ko naan allahuma rabba haasi dahwati tamma wa salaati algaaima aati sayidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa asullahu maqaman mahmuda nga di ko ko ñaanal yonent bi ne ku ma ñaanal ba ma jotte maqaam moom yowmal xiyaam maa lay ramm sëñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa mas di tagg yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla rafaatale ko maqaamam sayyidil awwalina wal axirin sangum ñu jëkk ak ñu mujj bi mu ko ko rafaatalee yonant bi sallallahu alayhi ni suñu borom waaw daraja ji maqaama mii nga xam ni man mooy maqaam mi gën a kawe ci man léegi bu ma ko joxee si Ahmadou Bamba ci man maqaama laay toog ban photo ne suñ borom ni ko xanaa dangaa fàtte maqaama mahmud fekk booba sëñ Tuuba dafay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa noonu mu waxee ni salaatu sitta bi mat i sitta taati batma atisa dafa ko boole di ko tagg ak di ko roy ba sës ko ba sës ko ba sës ko yonent sallallahu alayhi wa sallam borom sëñ Tuuba sës na ma amatuma lu ma ko jox nu may def mu ni ko jógal maqaam mi nga toog muy maqaamam sayyidil awwalin wal axirin jox ko sëñ Tuuba mu ni ko kon man ci man maqaamam lay toog mu ni ko xanaa da ngaa fàq fàtte maqaamam mahmud mi nga xam ni moom laa dencoon suñ Tuubaa yonent bi sallallahu alayhi wa jox ko maqaamam sayyidil awwalin wal axirin yéeg ci maqaamam maqaamal mahmud ku jàng tasawuf te dellu ci téere tasawuf yi wallahi doo werante ci lii ma wax dara xuma nag koo xam ne rek fàqi nga boo xam ni dangaa yem ci lii fuqaaw yi bind yow moom doo ko mën a nangu doo ko mën nangu Cheikh Bamba radiyallahu anhu bokk ci ñi nga xam ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam dañ koo donn ci li ñuy tudde mahabba sallallahu alayhi wa sallam daf ni képp koo xam ni soppoo ma ba ma gënal la sa ndey ak sa baay gënalal lépp loo am sëngëm des na sa ngëm na ngëm gu manqué nga ame waxul gëmoo yàlla de waaye nee na am nga ngëm gu manqué ñu ne ko kañ la ngëm di mat mu ne xanaa nga bëgg ma cofeel gu toll nii dama lay gënal sa ndey gënal la sa baay gënal la lépp loo am ak say doom hadis la boo xam ne Anas ibnu Malik moo ko solo mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yuminu ahadukum ata akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmaina amul kenn ci yéen koo xam ni ngëmam yàlla dana ko ko nangul lu dul ni daf ma bëgg bëgg bëgg ba ma gënal ko ndeyam gënal ko alalam gënal ko doomam gënal ko nit ñëpp su ko defee sa texe doog mat sa ngëm doog mat ma waxoon léegi ci waxtaan weeweesu ni sëñ Tuubaa yi nee na képp koo xam ne yàlla yër na sa xol gis lu tol ni dee deewu wex nga di ko ko inkaar wala nga di ko ko diingat boo demoon di wër néegub yàlla ba yàlla amul ci yow soxla tawaa fa kullu man alay ankara indal ilaahi wa nabi lan yaskura lan yaskura waaye wax na leneen nee na ci maqaamaat yi ak ci may yi ko yàlla may moom Cheikhul Bamba nee na xuloobu jumlati lasiina aflahum liya tawa jaxat wa rabbi muslihum nee na bépp xol bu nar a taxe bépp xol bu nar a taxe dana ma bëgg ba ma gënal ko boppam dana ma topp ba ma gënal ko boppam xol bu nar a texe rek mu dellu siwaat ci maqaama mii mu doonee ci yonentu sallallahu alayhi te mu waxoon ko saxaaba yi te Seydina Omar ne ko man de yaa ma gënal ñëpp ba mu des sama jëmm mu ne ko Omar balaa sa ngëm a mat ma gënal la sa jëmmi bopp ji mu ne yaa ma gënal sama jëmm mu ne ko xàkk saa kon sa ngëm a ngi doog a mat sëñ Tuubaa it radiyallaahu anhu mu wuutu yonent bi bokk ci ay mayam ci mawaahib yi mooy yàlla tawfiixale na ko mu doon yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ba képp ku yàlla yër sa xol gis ci dingat sëñ Tuubaa loo yoroon yàlla dina la ko delloo amu ci soxla loolooy li am yonentu sallallahu alayhi wa yàlla wax ni ko ku wuuteeg yow wuuteeg lislaam ji nga indi yow mal xiyaam ma delloo ko ko awma ci soxla wa man yabtaqi xayral islaama diinan fala yaqbala minhu la wax képp ko xam ni dikki nga ma yow mal xiyaam lu wuuteeg li muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi woon man yàlla awma ci soxla dama la koy delloo xaadimam bi ko donn radiallahu nee na yaquudu man xaalafani alxilaasu li mawli in li ahlihi dilaasu moom sëñ tubaa nee na yaquudu man xaalafani alxilaasu li mawdihi li ahlihi dilaasu képp koo xam ne wuute ngaak man sëñ tubaa ma daa weex nga inkaar ma ni daa ñuul nga inkaar nee na koo mën a doon yow yowmal xiyaam malaaka yu am kattan daañu ñëw téye ci say cambarga birti birtee yóbbu la safara wu ñu wax lasaa la qadrallah wala saman yaquudu man xaalafani alxilaasu li mawdiin li ahlihi dilaasu mu delluwaat ci li yàlla wax yonantu sallallahu alayhi wa sallam kon wa man yabtaxi xayral islaami diinan falan yaqbala minhu bokk na ci ay mayam nee na payug koo xam ni yaa ngi xëccoog man te tuubuloo ko ba dee safaraay sak pay mu ne jasaau man kaabadani niiraanu wa ajruhu xisyaanu wal xusraanu yoolub ki nga xam ni day xëccoog man dara dara dara man Cheikh Ahmad Bamba yoolam ba du dara lul al xisiyaan wal xusraan mooy da ngay perte àddina perte àllaaxira te yow mal xiyaam di nga dem safara wuñ wax niiraan mu ne ajur lesi naasa ani walam yatub saqaawatun tudduma fi umil kutub muy beneen bayit ba tey mu ne képp koo xam ne ba tey yaa ngi xëccoog man dara te tuubuloo ko ba faatu safara bu la fa yàlla yóbbu da nga fay sax dootoo fa jóg maanaam sax texee di yàlla bind na ko te dootu ko far mukk la qadrallah wala saman yàlla nañ ci yàlla musal ndax jàmm bi yàlla mën na ko bind mu bokk ci way texee di ñi muy pamti pamti ba dajeeg nitu yàlla walliw xaritu suñ borom mu far ko bind fa texe am na walliw boo xam ni nee na du tudd turam waaye xam naa ko xamin wu wér nee na saa bu nit waaxoo jëm si ci man bëgg a jaayanteeg man nee na suñ borom daf may defal kësfu ma xool rëddu jéem xam nga yonantu sallallahu alayhi wa sallam na doomu aadama saa boo xamante ni nii nekk na ci biiru ndeyam ñeen fukki guddi suñ borom da yebal malaayika mu ñëw bind ci rëddu jéem ni kii min ahli aw min ahli naar bind wërsëgam bind fan yi muy dund bind nangam mu ni moom walli boobu saa bu nit ki ñëwee ci moom di def moom mu bàyyi ah suñu borom da koy may mu xool rëdd jëwu jëmm ji su ko xoolee benn dana fa gis ni diw aji texee di la mu fàggul ko ak texe nee na bu ma gisee suñu borom bind ci jëwam ni diw min ahlil min ahli naar nee dama koy far ba mu set bind fa diw min ahlil jann lu ko may sañ-sañ boobu bu fekkee nag euh, dafa ñëw di jaayanteek moom waaye ab jëwam lañ fi bind mooy min ahli na kooku wàllu bi leneen la koy fàggul dara ju yëkkati ak maqaam mu yëkkatikoo ak mbir mu jub ak aaju fajoog waaye dootu fa nekk di sonn ci far bokk gi mu bokk ci way texee di ñi di fa bindi leneen di fa leneen moo tax nag moom sëñ Tuubaa mu ni képp koo xam ni yàlla dogal na nga inkaar ma mbaa nga xëccoog man dara man ni nii la nga ni nee la yow mal xiyaam su borom bind na sa texee di te dootu ko far mukk mukk mukk mu ne àllawu man asada nii laayan sarim wa bisru man yuhibbu nii laayan xarim képp koo xam ni yàlla dogal na man sëñ Tuubaa ma am ci yow ñagg-ñaggi xol nga añaane ma dara lum tuuti tuuti mun yow sa xol dootu sedd noppi ngaa am xol bu sedd ci kaw suuf képp koo xam ne man sëñ Tuubaa ni la yàlla ni ma yàlla def neexu la nee noppi nga am xol bu sedd ci kaw suuf mu ni waaye nag koo xam ne ni ma yàlla def neex na la mu ni mbég ngay faatuwaale am mbég ngay faatuwaale yàlla na yàlla dogal ñu ko yàlla def neex nu <laughs> kay neex nañu ndax sëñ Tuubaa ni ko yàlla def mooy ni mu def yonant bi rek sallallahu alayhi wa sallam fi ko yàlla jaarale mooy fi mu jaarale Moustapha alayhi salaatu wa lu naqaree wax la waaye lu am la lu am ama am la Cheikhul Bamba kon doon gi mu doon yonant sallallahu alayhi wa ci saahir ak ci baatin liggéeyal ko ba yonantu sallallahu alayhi wa gërëm ko bi mu ko gërëmee mu niroog yonent sallallahu alayhi wa sallam arfan bi arfin defe naa masoon na maa waxtaane benn mawdu fële ci bitim réew te mawdu bi tuddoon al muqaarana muqaarana ji jubluwuñ ci jéem a nirale yonent bi ak euh, sëñ Tubaa waaye booba fépp foo xam ne laal nga fa sa baaraam ci alxuraan ni yàlla defal na yonent bi nangam danaa laal sama baaraam ci xasiida ni la yàlla defal na fa sëñ Tubaa nangam noonu laa toppe woon mawdu bi ba mawdu bi jeex cheikh Sidiya baaba def ni moom xam nga bii eh, Cheikh Ahmad Bamba waree dem gànnaar moom lañ ko booleeloon Touba bi moom lañ ko booleeloon waaye nee na man gëstu naa sëñ Touba ci biir ak ci biti gis naa ni sëñ Touba ayibam du lenn lu dul ayibam ndéem am na ayib ndax sëñ Touba amul ayib bi saahir amul ayib bi baatin waaye nee bu fekkee ni lii ayib la jenn ayib jooju rek la xam ci sëñ Touba maanaam ñaari ayib ayib ju jëkk ji mooy jaamukatu yàlla la day jox yàlla lim moom ci moom day jox yàlla xàqam nee na ndeem xam na ni ndeem sëñ tubaa am na ayib ayib jooju laa am ci mu ni beneen ayib bi mu xam ci sëñ Tuubaa mooy njariñal bindaafu nii ci àddina ak ci loxoom bii la ko yàlla teg mu ni wama aybuhu ila ibadatu rabbihi wa naful wara fi sub yow masaayihi fi sub yow masaayi bul ko firee subaak ngoon déedéet fi sub yow masaayihi mooy àddina ak àllaaxira mu ne bu fekkee ni sëñ tubaa am na ayib ayib yi sëñ tubaa du lenn lu dul jox yàlla xàqam li yàlla moom ci moom suñ borom nee na ci hadisul qudsi sama jaam du dañ mukk di ma jox sama xaq ginnaaw ba nag mu jéem a jege jegeñ lu ci ay nawaafil ba mujj ma nekk làmmiñam bi muy waxe noppam bi muy dégge bëtam bi muy xoole tànkam bi muy doxe cheikh si cheikh cheikh na sëñ Tuubaa ayibam du lenn lu dul jox yàlla lim moom ci moom jox ko yàlla xaqan mu ni njëriñal mbindaaf yi nag alwara bu ko arab waxee lépp lu yàlla sàkk ci la bokk mu ni njëriñ mbindaafu ñëpp mi ngi ci xam nga loolu yàlla yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la ko defal mooy def njëriñal mbindaafu nii ci loxoom moom yonante ba tax mu ne ko wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dama laa yónni ndax yow njëriñal lépp lu yàlla bind nga yërmande lépp lu yàlla bind nga bi mu ko waxee loolu sëñ Tuubaa doon ne ko ci moom moo tax Cheikh Sidi ni ko dëgg dëgg nag man ayib ji ma xam ci yow mooy njariñul bindaafu ni ci suba yàlla yi ci ngoone yàlla yi ci sa loxo bi la ko sunu borom tabaraka wa taala teg moo tax mu sañ a wax ni yaa malikal mulki yaa man jàll an xawadi irham jëmmi alwara yaa haadi yaa haadin yow sunu borom mi nga xam ni yaay buuru buur yi nguur addinaa gu àllaaxira sa loxo la nekk yow mi nga xam ni jombante nga ngay fayonte kenn man sëñ Tuubaa maa lay ñaan nga baal sa jaam ñi nga yërëm leen ma ne nag yërmande jooju waram xam-xami bi suñ borom ne wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dama laa yónni ngir nga yërëmal ma bindaafun yëpp te yéefar yi bokk ci bindaaf yi te yéefar day dem safara kon yërmande jooj jan la te bu dee àddina moom yéefar yi moom seen yërmande ci àddina leer na waaye àllaaxira nag moo di bu nit ak jinne ak malaaka teewee suñ borom def leen benn bolok ñu mel ne boyotu almet bu fees jinne yi wër nit ñi malaaka yi wër jinne yi kenn du foo jaar bu keroogee suñ borom day xëcc jant bi ba muy bëggal laal boppi doomu aadama yi ñuy seen yuur yi di xëpp nit ci lu wañax ñuy xuus seen ñaqu bakkaar bu keroogee danañ ni siiw yàlla génn àtte leen dem safara sax moo leen gënal loolu ñu nekk mbugal moomu bu keroogee bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mëll génn sukk ci kanamu boromam jàng euh, sujjootal ko suñu borom ne ko siggil tey du bisu sujjoot waxal loo bëgg ma defal la ko mu daal di geesuñu ummati ummati suñu borom doo ko génn at jàmm ñi yërmande joojee lay wax foofu ci alquran naan wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin yërmande jooje la sëñ tubaa di ñaan fii ci àddina ak àllaaxira boo tax bu ñu nee sañ tubaa dafa ñaanalaale yéefar yi ñaanalu leen ngir ñu dem àjjana waaye daf leen ñaanal ngir bis boobee yërmande joojee mu ñaanal leen ci yàlla ak yërmande adduna ji moo tax mu ne yaa malikal mulki yaa man jàll an xawadin irham jami alwara yaa haadin radaha naka noonu beneen walli bu mag bu ñu wax cheikh saadu abi cheikh saadu abi nee na sëñ tubaa nihmatun minallaahi ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nekkee nihmatun minallaahi sëñ tubaa moom it xéewal la gu bàyyi ko ci yàlla ñeel jaam ñi mu ne a aseyxu ahmadu nihmatun mawlaaha haasil xalaayiqa kullaha mawlaaha yonentu sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf ko wax ci alquran ni ko laqad manna allahu ala al muminina isbaasa fihim rasulan min anfusihim boo gisee may gaawantu nii pour waxtu wi jeex na moo tax waaye may xam la ni daal mawaahibu seyxul xadim radiallahu anhu may sëñ Tuubaa bu fekkee ni bëgg nga koo xam boo delloo ci alxuraan may gu yàlla nii yàlla may na ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci xasiida yi da nga gis sëñ Tuubaa wax la ni la yàlla may na ma ko lu ko waral mooy da koo donn wax naa léegi junj naa léegi suñ jibri xule ni ko mu ngi mel ni ma délégué sama signature boo xam ne nii sama compte banque moo fa nekk loo bëgg a comme nu ma koy retiré rek noonu nga koy retiré sëñ Touba si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koo délégué ci signature am diggam ak boromam tabaaraka wa taala mu doon ko saahiran wa baatinan harfan bi arfin moo tax ñu di ko wax muhammad yu sëñ tubaa muhammad yu la wax naa wàllu yi am na ñoo xam ne ay muusa yun lañ am ñoo xam ne ay isa yun lañ am ñoo xam ne ay ibrahima yun lañ waaye sëñ tubaa moom muhammad yu la dafa doon muhammad ibni abdullah doonte wàllu yi la lañ doon ci isa doon ko ci muusa ñi ngi ko doon ci yonent yàlla muhammad ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy central bi nga xam ni mboolem wilaaya yëpp ci moom la daje moo tax wilaaya yonent yi ko jiitu woon ak yëpp ci la ñu daje ci maqaama yooyu rek la waaye ci maqaama muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ ko doon ne waaye wilaaya yi ñoo wuute ak ndono yi kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel di leen joxaat mm, beneen jataay insha allahu taala bu ñu yàlla defalee fursa xëy nañu ñu waxtaanewaat weneen waxtaan ci sëñ Touba ak géej géej ya ci aju ba keroog màggal gi di weesu insha allahu taala kon sëñ Jibril ñu leen di ndokkeel delluwaat di ndokkeelaat al alamul islamiya ci bis bu tedd bu màgg boobu di eh, safar ah, ni ko sëñ bi waxee nag sëñ Touba moom li mu gënoon a bëgg mooy alxuraan kon. ñu di ko ci jàngal alxuraan di ci ndokkeel it waa daara Ihya diin mooy eh, sama daara ji nga xam ni depuis 2013 ak léegi saa bu weeru eh, safar teroo ginnaaw saan gu ne danañ jàng ñaari kaamili alxuraan def ko haddiyey Sëriñ Tuuba ak ab lim ci xasiida buñ ko defee fukki fan muy ñaar fukki kaamil bu ko defee fukki fan yi kii juróom-ñetti fan yi ci des bis bu nekk ñu def benn kaamil mu nekk daal lépp day nekk vingt-huit kaamil di arafi Touba ñu defal ko haddiyee sëñ Touba depuis 2013 ba léegi yàlla na ci yàlla faj aajo jullit ñëpp yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ci war may alquran defal ko mboolem amatu naas bi di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu defal nu tawfiq tawfiq mooy li nga xam ne nii dana jariñ ab jullit addina ak àllaaxira mook alxabool kon yal na yàlla boole defal nu tawfiix defal nu xabool ñoo ngi jéggulu jullit ñëpp di jéggulu mboolem boroom xam-xam yi di wax rek ni tasawuf moom boo ci dee wax ah ñi jàng tasawuf te yër téere tasawuf yi dañ xam ne li ngay wax lu wér la waaye fokk aw yi nag ñoom mën nañ ciy dégg leneen loolu nag ah ginnaaw ñun yàlla defal nañ tawfiix yër nañ tuuti ci fiq yër tuuti ci tasawuf ñaar yëpp lañ mën a waxtaane moo tax ñu ngi leen di jéggulu di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulah safaru bamsasin junnatun safaru bamsas sahahtali rabbal bariyatil badan sahahtali rabbal bariyatil badan